Fudu jam kangu Fudu kumandige Gelu haru e karayo Fudu kumai jam kangu Jako yalmo jam sar Gelu haru e karayo Esara fudu jam kangu Jako yalmo jam sar Gelu haru e karayo Esara fudu jam kangu Jako yalmo jam sar Gelu haru e karayo Esara fudu jam kangu Jako yalmo jam sar oh. jam kangu buduku bandige jalo arwe karayo be buduku mai jam kangu jago yalmo jam sar kirwarwe karayo alo e sara budu jam kangu jago yalmo jam sar gelo arwe karayo e sara budu jam kangu jago yalmo jam sar kirwarwe karayo e sara budu jam kangu jago yalmo jam Oh budu jam kangu budu kumandige jalu harwe karayo be budu jam kangu jako yalmo jam sar e sara budu jam jam sar kirwarwe karayo e sara jam sar kirwarwe karayo e sara fudu jamkangu fudu kumandige gelo arwe garayo be fudu kumai jamkangu jako yalmo nyamsar gelo arwe garayo esara fudu jamkangu jako yalmo nyamsar gelo arwe garayo esara fudu jamkangu jako yalmo nyamsar gelo arwe garayo esara fudu jamkangu jako yalmo nyamsar Oh fudu jam kangu fudu kumandige jalo harwe karayo be fudu kumai jam kangu jako yal mo jam sar kirwar me karayo e sara fudu jam kangu jako yal mo jam sar kirwar me karayo e sara fudu jam kangu jako yal mo jam sar kirwar me karayo e sara fudu jam kangu Ben, ben. L'arrivée de Wali Balago le de Balago le golden boy de la milice sénégalaise drapeau Papa John. aka from Faramaren Music Ranji 2022 MM Massou Motor MM Mansour Motor MM soyez vigilants bu leen kenn rax